Euh, premier ministre Abdoul Mbaye dafa am euh, benn portrait bu mu dressé ci euh, ci ci ci ci Habré muy un homme qui a défendu quand même son son peuple qui a défendu son territoire si moment yi mu ko défendre ñu bari nee nañ Pa Mokhtar bi mu koy fàttaliwaat démb que c'est des moments de guerre une guerre propre ça n'existe pas wala boog bariwul man de xaw ma ko alors finalement on retient de Habré le dictateur sanguinaire qui a tué comme ni ñu ko bëgg ni ñu ko bëgg a gëmloowee wala l'Africain qui a défendu son peuple moment bi mu ko soxlaa. Euh, waaw xam nga euh, Moustapha comme la plupart ñi nga xamante ne ay leaders lañu en Afrique. am mm. benn envergure bi. donc euh, souvent buñ demee ba génn àdduna day am un peu de controverse par rapport ak leur parcours. Mm-hmm. du d'accord trop ak le premier ministre Abdoul Mbaye mm-hmm. buy mettre trop en exergue la responsabilité wala. Euh, mer bi euh, Kadhafi mere woon Hissène Habré ba mu jaraloon ko lu ne pour mu faagaagal ko. Mhm. c'est vrai que yeggoo animosité bi yeggoon na foofu mais bu ko mettre trop en avant day mel na kuy bëgg a dindi également responsabilité wu France. France te loolu c'est fondamental xam nga Hissène Habré. Mhm. Euh, huit ans la def au pouvoir. 82. Mhm. la falu donc de 82 à 87 mën nañoo wax ne daf ko xeex. daf ko xeex. pendant tout son règne xeex la. presque presque. Mhm. parce que huit ans la def au pouvoir euh, nu mu tur mu turati cinq ans yëpp daf ko xeex. de mhm. quatre vingt deux à quatre vingt sept. te loolu nekkul xeex boo xamante nii moom moo ko déclenché maanaam libi dafa annexé benn euh, benn territoire bu nekk Tchad. Mhm. boo xamante ni ñu ngi koy ñu ngi ko tuddee la ban Daouzou. Euh, bu mu ko bu mu ko euh, annexé en 1973. Mmh. donc c' est bien avant l' arrivée de Hissène Habré au pouvoir. Mmh. donc Hissène Habré bu mu ñëwee au pouvoir. Mhm. moom lu mu def defi mooy repousser les force libyennes ba ñu libérer territoire boobu nga xamante ni occupé nañ ko. Mhm. te loolu tamit bokk na ci tâche noire Kadhafi parce que effectivement. Euh, ñu bëri buñ boo leen ne Kadhafi lu ñuy gën a gis mooy le panafricaniste alors que les raisons yi ko poussé woon ba mu occuper véritablement territoire boobu euh, euh, Tchad euh, un panafricaniste mënu ko nangu parce que quelque part ab seddoo la rek boo xamante ni tubaab yi ñoo ne dañ koy def maanaam Mussolini nekkoon njiitu Italie instant yooyu ak waa France ñu ne territoire bi mhm. léegi dañ koy jëlee ci France jébbal ko Italie mhm. loolu mu ngi am trente cinq donc en 39 bi guerre bi amee Italie ñàkk. Mhm. territoire boobu léegi accord boobu léegi amatul woon pourtant euh, Kadhafi ci accord boobu la basé wu pour ne day annexé bande boobu. Mhm. ce qui fait que euh, euh la là euh, Habré. bu mu accès au pouvoir. Mhm. moom lu mu def defeem mooy repouse libyens yi te loolu il la réussi au bout de pratiquement cinq ans génne leen. mais bu loolu amee taxul. Euh, nu mu ñu bàyyi ko parce que euh, pratiquement guerre bi dafa jeex en quatre-vingt-sept mhm. ñu repoussé officiellement euh, déclaré libyen officiellement perdant mm de quatre-vingt-sept à quatre-vingt-dix pratiquement trois ans la am pour ne mu ngi xëy na doxal euh, réew ma mhm. il n'a pas eu ce temps la parce que xam nga lu tax ma occulter responsabilité Kadhafi mhm. en quatre-vingt-huit dafa am quelque chose qui s'est passé mooy les attentats de Lockerbie loolu dafa placé woon euh, Kadhafi mhm. ci ligne de mire des Américains ba nga xamante ni mënuñu ko woon soutenir pour muy dal ci kaw véritablement ku mel ne euh, Habré au mhm. contraire ñoom xalaatoon nañu benn moment war nañu mën a basé wu ci euh, l'autre là ci Habré pour mën a tenir tête à Kadhafi mi nga xamante ni il avait des visées mhm. non pas panafricanistes mais de conquérant boo xamante ni yaakaar na ne war na mën a établir un peu partout son son truc léegi bi guerre boobu jeexee Hissène Habré nekk le tout euh, euh, euh, puissant président. Mhm. génne les Libyens dafa am nu mu tuddati un choix politique bu mu def. muy lan mu ne il préfère traiter. Mhm. avec les Américains plutôt avec les Français te loolu indi na véritablement benn rupture bu mag léegi bi Français yi xamee ne kii nii. Mhm. véritablement mu ngi leen di commencer wan ginnaaw ci la ñu indee Idriss Déby. maa ngi kii rappeler euh, le premier ministre mu ngi ne Idriss bi ay été le responsable des DDS. Mhm. mais avant ça xam nga euh, coup d'état bi am euh, Tchad. Mhm. bokkul ak coup d'état yi am régulièrement souvent en Afrique. Mhm. nga xamante ne nii ci palais bi la ñuy yeewoo rek ñi nu nu mu tuddati ñu ne capitaine bi tiire na. kële tiire na président bi dem na. bii c'est au nord la ñu jógee ànd ak ay forces yoo xamante ne nii di dem à la conquête de naa comprendre mhm. te instant yooyu noonu de bi moom moo nekkoon commandant wu force armée du nord. Mhm. muy les fan. donc bi ñuy yegg si N'Djamena nga xamante ni conquête bi mat na c'est Idriss Déby moo nekkoon à la tête des troupes. d'accord. comprendre nga. c'est Idriss Déby qui était à la tête des troupes donc. Mhm. bu ñu nee tey jii nii euh, Idriss euh, Abré rey na nit wal euh, rey na dix personnes rek jàppal ne. le fusil wala ki nga xamante ni moo tiire bal bi. Mhm. c' est Idriss Déby qui lui a donné cet ordre là. Okay. et non pas le, le, tout à fait. Mm, d' accord alors euh, est ce que dangay ngay d' accord ak moom que ni si on veut mettre tout wala boo lu ci ëpp ci ci ci euh, ndoddu Kadhafi dañuy occulter le rôle bi nga xam ne moom la la France joué dans cette affaire ab bref. li mu wax yépp dëgg la. Mhm. boo gisee man ma joxañ Kadhafi. Mhm. dañu jàpp. wara seet lan moo indi jafe-jafe yi Hissène Habré dund ci Sénégal hmm. kooku mu ngi jóge ci Kadhafi ci li ëpp looloo tax ma joxoñ Kadhafi d'accord waaye li mu wax dëgg la hmm. te war nañu fàttaliku ne Hissène Habré hmm. li ko jëkk a duggal ci xaare mooy xeex l'impérialisme maanaam Hissène Habré dafa jàng tugal jógee tugal ak diplôme ñëw di xeex le régime de Tombolbaye mais régime de Tombolbaye soutenu par la France kon ki mu jëkk jiital ci mu war a doon noonu Tchad mhm. moom France la jàppoon on oublie ça souvent mhm. mais li mu wax dëgg la ba noppi nag mhm. Idriss Déby ci boppam li ko may doole ba mu mën a daaneel Hissène Habré France jàppale ko ci la loolu tam ko fàtte Idriss Déby ah oui moom ba Idriss Déby ba bi muy génn àdduna c'était c'était l'élément de la France moom ba bi muy génn àdduna moom Idriss de dès le départ oui. dès le départ jusqu'à la fin mm-hmm. te gis nga boo waxee loolu itam ñu war ci teg leneen gis nga dernière rébellion bi mm-hmm. saa ñu rébellion amee avion français jóg bombardé oui. rébellion bi mais en Habré musul toog ba nangu étranger di xeex ak euh, Tchadien di rey Tchadien musu ko nangu même même même Tchadien yi non non c'était des Tchadiens de des mosul toog oote ay américain wala ay français ne bombardé leen mag ñii mhm. voilà hmm. la différence entre les deux. très bien alors Pape Makhtar bu ñuy déglu li fii li ñu fi wax yëpp euh, premier ministre Abdoul Mbaye ak maam Birame Wathie euh, dafa mel ne euh, moom Hissène Habré dafa nekk symbole je ne sais pas comment dire ça symbole complexité relation yi nga xam ne moo dox généralement diggante occidentaux yi ak africains yi rawatina réew yu mel ne France wala Belgique. mais évi évidemment parce que tey. Mm-hmm. xam nga histoire Hissène Habré mi ngi commencé si jamonoy 2000. ba ay soi-disant victimes de torture ñëwee porter plainte ici au Sénégal pour torture contre Hissène Habré mhm. justice sénégalaise def liggéeyam débouté leen waaw mais ñoom comme dañu nekkoon double nationalité dañu yoroon nationalité tchadienne mais aussi dañu yoroon nationalité belge ñu dem seen dëkk saisir seen justice foofu la saaga bi commencé en fait saaga bi mais évidemment xam nga tey jii Belgique mhm. ñoom bu leen toppul ci crime contre l'humanité ci lu ñu def Congo ñii naan plus de dix millions de morts ñoom tey ji waruñu taxaw di naan dañuy fexe ba Afrique ñu jël seeni doom di naan dañ leen di juger quelqu'un wax nañ ko léegi kii s'est battu contre l'impérialisme mhm. fekk réewam ci noot ak ci jaay doole mu ñëw taxaw di xeex mais évidemment guerre bu nekk dina am ay victimes mhm. ba ñuy jógee seen dëkk di dem di envahir Palestine Euh, di dem di en Palestine aussi cas bu kaabu kaabu euh, cas bu cas bu la. Syrie bu ñuy dem di euh, dem fële ci Irak ñaata ñaata victime nañ tuddee ay victimes collatéraux. Mm-hmm. ñaata yoon ñoom na bu ñuy def seen évasion. di dem évasion militaire yoo xamante ni kenn mënu comprendre moo ci nekk lu dul ay enjeux peut-être yoo xamante ni économique la. Mm-hmm. bu ñu koy def ñoom lu ñuy def dañ koy tuddee dommages collatéraux. Mm-hmm. bu nekkee nag africain bee def ñu tuddee crime contre tey man je pense que ni Sénégal li waroon doon taxawaayam waru doon warul woon doon lii en fait parce que tey bu nekkee victime Habré yi mérité nañu ñu rendre leen justice. Mhm. victime tirailleurs sénégalais yi nga xamante ni duñ ay sénégalais kese nekk fii ci camp camp Thiaroye nañu aussi ñu rendre leen justice. Mhm. mais pourquoi tey chambre africain bi nga xamante ni nangu na compétente te loolu ci gën a doy waa compétente pour juger après tëjuwaat demaat seen yoon mais bu mu ñu jaaxal Moustapha mhm. ndax njiitum président njiitum États-Unis ba mu ñëwee fii ci Sénégal dafa jël suñu magistrat yëpp tëjoog ñoom waaw ba waxuñu lu ñu waxtaan c'est-à-dire yow que xalaat nga loolu Abdoul Mbaye nekk président dem ba États-Unis jël magistrat yëpp ni kaay leen fii ñu tëju waxtaan ak ñoom ci lu ñu ni benn pouvoir bu indépendant la maanaam Macky Sall sax woo am loolu benn président étranger ñëw suñu biir dëkk di tëju ak suñu ay magistrat la nañ fa jot a wax donc je crois que ni vraiment. lii mhm. tey lu ñaaw la man je pense que ni Hissène Habré dañ ko waroon célébré comme benn héros. Mhm. comme ni nga xamante ni. da jàpp ne condition yi mu décédé fii ci Sénégal euh, di fàttale fii ci sëgu yoo fi lañ ko denc da nga jàpp ne dafa dafay lu nekk luy gàkkal deru Sénégal. mais c'était largement évitable. c'est évitable. évitable parce que tey bu ñu nuwee dee dañuy naan wéy yàlla ak yàlla yàlla feebar lu ne dañ koy wax mais ku ñu da nga am ay comorbidité Mm-hmm. cest à dañu lay naan ak surtout situation boo xamante ni dañ nekk situation pandémique moo leen déggee ñun feebar bi jëlee ko ci euh, kii ba prison bi xam ñoom dañu doon def ci ay test ci biir prison bi dañu xool seen prison bi amul benn euh, nit bu fa infecte mm-hmm. dañu leen defal ñoom ñëpp test de masse. nee nañ diagnostiqué wuñ fa benn test benn mm-hmm. amee benn cas. voilà waaw ñoom xaaru ñoom ñoo doon wëlbatiku dinaa am na ay cas wala porte asymptomatique. ñoo xamante ni dañuy yor feebar bi feebar du manifesté wu si ñoom. bëri na léegi loolu mënul nekk ci biir prison bi. ci biir prison mënu am ay porte asymptomatique muy nekk ñi nga xamante ni dañuy liggéey ci biir foofu wala ñi nga xamante ni dañ leen tëj ci biir kaso yi donc je pense que vraiment mhm. kenn mënul comprendre seen taxawaay état du Sénégal encore une fois mhm. tey yaakaar naan lii mu def waru ko woon def waroon nañ ko mën a bàyyi mu dem këram mhm. ñu def ko résidence surveillée def ko leneen ak leneen mais pas pas di ko tëj ci biir kaso ba tey jii mu fay jële feebar wala bu ko jëlewu ci feebar feebar foofu tey dafa gën a yokk ay risques yoo xamante ni tey jii loolu la ñàkkee ba kanam te loolu vraiment dafay gàttal suñu suñu suñu suñu Pape Sané rapidement avant may dellu rapidement voilà Moussa Ba c'est que mhm. dafa am bi nga xam ne il mhm, seen Habré musul doon militaire c'est-à-dire bizarrement c'est un haut cadre des plus grandes écoles françaises Habré du soldat musul doon soldat Habré n'a jamais été un militaire après il est sorti de l'école des autres études euh, études euh, diplomatiques de de de Paris fa la jógee. Mm-hmm. nu mu def ba nekk chef de guerre alors. voilà mu ngoog c'est ça en fait le le le charme dans dans le parcours de Habré. Habré dafa ñëw parce que balaa moo dem. il a été même sous-préfet quelque part dans cette bande d'Aouzou bi nga xam ne qui était occupée donc mm-hmm. moom -hmm. déjà cela a été ses premiers premiers contacts avec Euh, l'impérialisme foofu la jógee. donc mu dem jàng ji fi mu jàngee foofu en France nañu organiser seen noyau dur ñëw ut si l'indépendance justement euh, de de cette bande Daouzo. Mhm. loolu c'est un point pourquoi Habré n'a pas pourquoi tubaab bi mënuñu woon maîtriser Habré parce que Habré n'était pas un militaire d'habitude ñun suñuy militaire en mhm. Afrique. ils sont formés soit en Europe soit mhm. aux États-Unis soit ailleurs même suñu formé wul ailleurs mhm. mais boo xoolee seen cursus yëpp daanaka il faut ñu am ay lu mel ni ay école de guerre ak yooyu bu ñu koy def ci dëkk yooyu nañ koy defee donc Habré le problème de la France mooy Habré mënuñu ko woon maîtriser. amuloon complexe vis-à-vis. amuloon complexe vis-à-vis de ñoom. soo xoolee am na benn attentat bi nga xam ne bu nga xam ne moom la njëkk reproché Habré. Mhm. mooy quand le représentant de la DGSE française Euh, bi ñëwee dante le premier coup après la guerre c'était en 1988. Mm -hmm. le gars le gars ñu rey ko c'était le représentant de la DGSE française au Tchad. Mhm. ñu rey ko ñu bugg ko tax Habré mais en fait au bout du compte les gens ont, ont compris que c'était pas Habré mais pour ñëw ci DDS bi. Euh, premier ministre bi wax mhm. le plus bizarre dans l'affaire de la DDS Idriss Déby bi mu egsee au pouvoir en 90. Mhm. li mu njëkk def. c'est détruire toutes les archives de la DDS donc ay Reed Brody ay droits de l'homme yi di wax ba ñëw conduire Habré en prison ci ay archives yu ñu lakk ay dag desitu archives la ñu jël collecte dajale naan lii mooy archive te loolu début moo ko def oui parce que il a été le patron de la DDSE DDSE boobu nga xam ne moom li ñuy wax ni li ñu fa doon torture rek rey moom moo doon patron bi avant de se rebeller contre Habré et de revenir bi mu ñëwee N'Djamena li mu njëkk a def mooy se détruire la DDC waaw waaw donc tey jii <laughs> voilà quelqu'un bi nga xam ne maanaam on on l'accuse de tous les péchés d'Israël mm. mais nag nasaraan yi li ko maam Biram waxee mm-hmm. ça c'est la politique française njiit bu leen fi arrangé wul mm-hmm. nii nañuy jéem a defanteeg yow ci loolu ci loolu sax lañ lañ lañ bëgg a wax euh, ma ma jàll ci directement de prémisse ak li nga ci bëgg a waxaale moo di ne euh, da nga wax sànq bi ngay tijji sa kàddu nga ne ñaari forme dictature lañ xam bi nga xam ne ñi nga xam ne seen xam-xam bariwul comme man moom la ñuy xool di ko gis euh, ku yor armam yor petalam di diriger réew ku yëngu mu dóor nga ne am na beneen boo xam ne mooy dangay fexe ba doo am beneen benn opposant te di ko teg nag ci loi yi nga xam ne xëy na moom ngay gouverner si réew nga ne Sénégal euh, ci loolu lay dund. waaw mais balaa ma ciy agsi. bien sûr am na loo xam ne dafa am solo ñu war ko wax mu jëm ci euh, li doon wax sànq. Mm-hmm. Hissène Habré amul lu mu ragaloon. amul. dafa ñeme. wax naa la ko sànq. Mhm. dafa jóge université dem di xeex ji pour libérer son pays de l'impérialisme français toog nañu sommet Afrique France ñu naan c'était la boule Mitterrand naan démocratie dafa war am Afrique et cetera et moom moo jóg mais on n'a pas de leçon à recevoir. sañ ko wax Sankara itam musoon na am lu mu sañ wax Mitterrand gis nañu li ko dal waaye mu am itam leneen loo xam ne duñ ci bàyyi xel muy le pétrole tchadien ndax négociation yi ci Abdelador mu dëgër këj parce que cest un nationaliste am na lu mu buggaloon réewam mm-hmm. ca la jëf ca yàqu ma ñëw ci dictature lii li ma laaj sànq. Mhm. borom xam-xamu tubaab bu ñuy wax Montesquieu dafa mas a ne euh, amul dictature bu wees dictature boo xam ne day làqu ci gannaaw loi dictature ni ma la ko waxee sànq. Mhm. façon façon la. am na boo xam ne bu Idriss bu bu Idriss Déby wala bu Amin Dada wala ñoom lañuy fàtt rek. Mhm. di di di rey. waaye am na itam dictature boo xam ne day jël loi teg waaye dictature boo gis. Mhm. li muy jiital mooy xeex opposant te man rek maa war a toog. loolu dafa kenn warut a toog mais loolu moo fi ne. parrainage bi c'est anticonstitutionnel c'est contre le bloc de la constitu euh, bloc de constitutionnalité du Sénégal. cour de justice CEDEAO wax na ko. Mhm. lan moo indi parrainage. Senghor. segg génne ay justice waaye waxuma justice noonu rek justice boo xam ne danga ci jiital walla teg ci soppi code électoral ba ku mënut a doon électeur du mën a nekk éligible L57 bu njëkk ba mhm. ku nekk ko koo bëggal éliminer rek nga topp ko ci yoon condamné loo ko boo ko condamné ba noppi soppi sa loi du mën a ci bokk ci élection c'est la dictature hein noonu lañu ko mën a tuddee damay toog du ma nangu koo xam ne démocratie mën na ko indi ci man walla ma ragal ne diw mhm. bu ma bàyyee le jeu démocratique ouvert mhm. dina mën a toog fi ma toog ba daal di di. mais mais dans une dictature dans une dictature quand même un ancien premier ministre doit am possibilité ñëw sur le plateau d'une télévision privée attaquer le régime pendant des heures et des heures génn jël oto ñibbi këram en toute tranquillité dans une dictature loolu dafa am. non ah, je n'attaque pas le régime j'attaque des attitudes bu fekkee ne am na loo xam ne wax naa ko te ànduloo ci. wax ma ñu ñu ñu ñu ànd ci waxtaan. ñu seet ndax li ma la wax. am na wala amul. c'est des constats ndax soppiwuñu. c'est mm-hmm. des ce des constats. ndax soppiwuñu la L57 yokk ci ne pour être éligible il faut être électeur te loolu amutoon mm-hmm. waaye ñu ngi ko indi ndax rek soxla ñi nga xam ne ñi jotoon nañu leen yóbbu yoon duñu mën a duñu mën a euh, ba bokk ci ci ci ci géew bi. d'accord mais est-ce que est-ce que au-delà du du du fait que euh, yaa ngi wax ne ci ci dictature la ñu nekk euh, boo suivre li ñu fiy wax sànq ba léegi dafa am problème de fond un problème fondamental boo xam ne dama jàpp buñ ko réglé wul yu bari ci ñun duñ ko ma avancer mooy la nature même des relations yi nga xam ne moom moo war a dox ci diggante benn France ak suñu njiit yi. parce que su fekkee ne un nationaliste comme euh, ni ngeen présenté Hissène Habré fii lay mujjee ak yeneen cas yu fi am wax nga sànq le cas de Thomas Sankara ak yeneen ak yeneen est-ce que euh, jotul les Africains seen bopp ñu taxaw xolaat la nature de ces relations là. waaw mais laaj laaj ko njiit yi laaj ko suñu njiit mais yow est-ce que sax doo doomu tubaab. Mhm. am na ñu koy wax. parce que déjà euh, Abdoul Mbaye ba mu nekkee premier ministre déggul woon wolof. da doon jax sa bu waree wax million wax mille bu wax cent wax deux cent. doo gis ci attitude Abdoul mbay mhm. mu teg loo xam ne jiitalul intérêt national amul doo gis ci attitude Abdoul mbay premier ministre mhm. loo xam ne lii ci ci moom la wekku woon te jiitalul intérêt national ça veut dire mën mën na bañ a ànd ak xeex mhm. waaye mën nga doon national nationaliste jusqu'au bout des ongles ndax yomb na nga jiital intérêt Sénégal yi ci lu ne